plateau bi ayca. yenn saa dama ragal mu sotti yenn saa dama ragal tekki sama sidi dafa bëri zombie sama sidi dafa bëri zombie yenn saa dama ragal mu sotti yenn saa dama ragal tekki sama sidi zone bi sama city dafa bëri zone bi mooy tudd zone bi bro dañ lay zone bi yàkkamti nañ ku nekk woo tap homie demuñu bro dañu bàyyi kenn dem noonu ku ñu lu bon man xaw ma lii lan la nii au lieu ñu jàppaloon. ak The Future Legend. maa koy laaj nii ma ne ko from fan. salaamaaleykum. salaamaaleykum salaam. mu ngi dox bro. yeah. lépp jàmm. oui mu ngi dox. donc euh, nuyu téléspectateurs yi ñun moom xam naa ni mënoo ñoo napp peut-être euh, ah, <laughs> téléspectateurs yeeg yooyu mën ngeen napp mais pas ñun quand ok salaamaaleykum bu ma sant yàlla julli si yonente bi maa ngi sant sama yaay bu baax di leen nuyu yéen tamit di nuyu ñuy sentaan yëpp. mais yow ba ci euh, dama lay euh, bàyyi xel ci Instagram bi parce que il est suivi euh, ci les réseaux sociaux mais da nga bëgg fi jinne zombie rap ci lëndëm vampire ki xamp ki matuloos c'est quoi quoi waaw yow yow si yow yow c'est quoi lan mooy problème bi non non man pour pourtant kii ma loolu sa en kay naan direct. matiku amtiku mais The Future Legend euh, c'est un nom mais way zombie tamit c'est c'est man dama dama tiit ma gisee zombie nga way pourquoi zombie. eh zombie zombie mun naa ne fii Sénégal daa bëri zombie. ay zombie lañu waaye eh. eh. Ah, ñun eh, ngi ñibbi kon bu ay. non non parce que fii. zombie eh. waa boo nee Sénégal ay zombie lañ. wala dafa bëri zombie. ba mel ni Petit Ndoye yow mii boo dul zombie tamit <laughs> da def ay ay yëfi zombie yëfi zombie rek ngay def nga ma yëfi zombie ndar may jooy loolu pareegu ma nga bëgg maa def yëfi zombie Petit Ndoye lu tax nga bëgg nekk zombie <laughs> ay ca ngeen Sénégal dañu bëri ay zombie daa bëri ay zombie quoi parce que ah. fii bu ñu gis ku nekk si yoon wala affaire yooyu dañ lay jéem a yàq di la ah ñooñu zombie ah. xam nga bëgguñu bëgguñu gis koo xam ne mi ngi ci yoon te en plus xam nga dañuy dañuy nekk di la dafay affaire nga ni ñan ñuy zombie yi zombie yi ñooy barki tiire moom wax nga dëgg ay zombie lañ ay zombie lañ kay ay zombie lañ eh, eh, yaay même si waay eh, yow kii eggal na te waxtaan waaw kii wax na dëgg waay ñooñu ay zombie lañ kay ay parce que benn jour dama dox sama koñ gis sama ah, gis ay affaire yu bëri ay gis koo xam ne nii ah, bugguma wax sax tur mm. muy def ay affaire yoo xam ne man dafa ma jaaxaloon quoi. kon yow ki soxor zombie la. ñoom ñëpp ki iñaan zombie la. waaye ki nga xamante ne réaliser wul bu baax tamit euh, zombie la. ñoom ñëpp ay zombie la. ok <laughs> mais pourquoi ce choix pourquoi titre bi yow nga ni euh, xaaral ma bind zombie. parce que dama doon dox sama koñ ah gis sama benn euh, grand muy xam nga muy def yenn affaire yi quoi gars di ko mu mel ni ku ku dof fekk ni doful. échange mm. xam naa bu baax la ko moo tax si loolu laa laa jëlee kii bi après ma dem bind ko. am gis ah, man ah, ah, nga am benn style bu bu bu bu extraordinaire ah. Mm. Euh, bëgg ci. lu lu lu da bëgg lu graaw quoi. yee dama bëgg loo xam ne dafa. différent waaw ba ci fecc bi ba ci say geste ngay def ay yooyu lan moo tax loolu. parce que euh, dama yàgg sentaan Chris Brown bu mu nekkee xale ba léegi moom laa doon roy affaire yooyu saa su génnee clip ma jëlaat ma jël danse yi paay way bëgg Michael Jackson affaire yooyu noonu. Uh-huh. fecc nga commencé wala ci way nga commencé. man fecc laa commencé après gars yi gis lu may fecc mais affaire yi don la woon si man après euh, si lañ ma yóbbee États-Unis. ah nekkoon nga ah, oui. Ah, euh, yaa ngi soog a nag yaa ngi soog a ñëw. ah yow da nga voyagé quoi. Ah, am leneen léegi maa ngi seet xaw ma fan la maa ngi xool dëkk beeg yooyu parce que lii nga sol ak li nga def nii yëpp ku juddoo ci réew mi yaroo fi màggee fi sañu koo def ñoom abaa ñii boo leen indi woon def li nga def nii. non pourtant fii laa fii laa juddoo. artistiquement mais am na feneen ah. foo jaar. waaw ah. mhm. léegi après gars yi jàppale ma formé ma après ma commencé woy après c'est que depuis depuis bu ma nekkee xale la lii. Mm, après cela commencé def lii après gars yi bëgg lu may def. te yooyu après ma ne xaar ma commencé sama carrière. mais lan moo waral le nom The Future Legend lan moo waral la nom. parce que kii laa buy ñëw légende laa buy ñëw. moom nga légende rek la defal légende laa buy ñëw légende. buy ñëw buy ñëw. ah buy ñëw après. <laughs> waaw ñun ñi nga xam ni mënuñoo wax ñun ñu dër ñu ci àdduna. <laughs> nee na moom mu ngi légende <laughs> eh, ñun ñi ñi nga xam ni ñun ñi nga xam ne dañoo dër mënuñoo wax fit mën nga ñu ëpp lépp ba mu des fit ñoo ëpp fit ci àdduna. Ah, dëruma de man dëruma de damaa xaw a kii rek. ah awa. Ah, ah. dama xaw a am kii rek. Eh, kii mënoo wax yow nga dënnu amal si léegi. <laughs> dënnu dama xaw a tension <laughs> ah, léegi noonu la donc première euh, sa première vidéo du bii. thank you bii la kii. mais lan mais euh, tu es suivi ci réseaux sociaux yi. Euh, yenn extrait yi nga fay dugal. ak yooyu loolu c'est quoi. loolu dama koy lancé nii rek. ok lancé rek mais maa ngi waajal ay clip ay son ay affaire yu bëri. en tout cas ci ban uh-huh. genre style musique. ak ci ban damay def wolof anglais. yeah maa ngi def style R&B moom laay def R&B laay def. donc wax ñu projet yi ak euh, son bi clip bi kan moo ko def ak fu ñuy mën a dem euh, pour xool clip bi ak yooyu yëpp waxaale ñu say projet. yeah clip bi kii moo ko def afro. Mhm. visuel son bi taala moo ko def. ok yeah euh, maa ngi si projet yu bëri maa ngi si son yi maa ngi waajal def ay clip maa ngi waajal def ay concert affaire yu bëri. ok en am na yu bëri yu ñëw. en tout am nga say sur bopp. waaw ba takk nga chaîne takk nombal baat takk na nombal loxo euh, takk nga benn tëxërëm bëmbët fii kii euh, kii takk nga lu ne vraiment artiste euh, artistiquement moom tu es là moom. Mm-hmm. artistiquement tu es donc santal ñi nga bëgg a sant gërëm ñi nga bëgg gërëm. Ah, ñu bàyyi la nga dem. tey maa ngi gërëm sama sama yaay bu baax. Mm-hmm. di gërëm sama pap di gërëm sama. manager di gërëm ñëpp ñu ma ñu ma jàppale si affaire bi di gërëm sama yaay Amina mi ngi États-Unis sama sama famille nekk foofu maa ngi gërëm tamit maam Daba maa ngi gërëm ñëpp ak Jibril Gadaay yeah mën nga euh, sa page Instagram mën nga ñu ko wax yeah sama page euh, Instagram da de Future Legend jaajëf ñu ngi lay kontaane bu baax a baax a baax fekk ana kii Seck